salaamaaleykum mbokk internetu Dakar Net ak Infos Rewmi euh, bu ñu nee 8 mars xel yëpp day dem ci journée mondiale de la femme moo nekk ñi nga xamante ni moom la ñuy sargalee jigéen ñi saay saay bu euh, weer bi jubsee tey nag fi ñu ñëw nii mooy rond-point RTS euh, bu ñu fi ñëwee yaakaar naa ni ñi nga xamante ni dañoo nekk ay jigéen aussi tamit ñu am problème mu xel. ñoom tey ñoom ne nañ seeti fii situation ànd ah, taxawu ñu wéree di te yàlla rek tax ñoom ñoo ñu woolu fi tey fii duñ def rek lu dul dugg laal leen ñoom ah, seen réaction naka la ñuy ah, ñëwee fekk ki nga xamante ni wérul nan lañ koy naxtaanee ba andi ko aussi tamit ba waxtaan ak moom ba mun ko sang mun ko solal yére mun ko defar loolu yëpp après nañ ci dikk nañ laaj gaay yi ñoom naka la ñuy dundee loolu ma ànd ak ceeg sama cameraman bi Mounas di leen wax léegi léegi rek. waa kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak képp kuy doomu aadama mu gëstu bàyyi xel ñi am feebaru xel te nekk ci mbedd mi parce que tey bu ñu nee journée mondiale de la femme euh, foofu xaajalewuñ du ki nekk ci mbedd mi du ko nekk ci biti waaye tey Sénégal niñ ko baaxoo di ko gis mooy ñiñ koy defal mooy ñi nga xamante ni ñi ngi ànd ak seen xel bàyyi ñi nga xamante ni ànduñu ak seen xel loolee tax ñun association am ñu wér te yàlla rek tax ñoom am initiative porter voix ñoom seen kàddu ñu génne ñoom seen kàddu parce que li ñu bëgg a wax ñoom bari na li ñuy dund metti na moo tax ñun ñu jóg ànd ak soxna yi nga xamante ni ñoo nekk ci association bi ngir jóg lancer leen message bi nga xamante ni moom la ñuy dund te buñ ko waxee nit ñi duñ leen dégg duñ leen ci bàyyi xel di leen ci toroxal di leen ci beddi ñun ñu jóg di leen waxal message bi nga xamante ni moom la malade mental yi di dund rawatina jigéen ñi dañu leen di sàkku ci mbedd mi bay génne seen col utérus dañu leen di toroxal dañu leen di sacrifier dañuy dox dajeeg malade mental bu jigéen boo xam ne dañoo dagg benn noppam wala dagg benn baaraamam bu ñu wëree ay mbokkam ba gis ko mbokk yi ci boppam dañu wax ni kii bi mu fiy jógee cëram yëpp dafa matoon kon ñi ngi sacrifier malade mental yi te jigéen magasinu yàlla la jigéen magasinu yàlla la moo tax képp kuy jigéen rek war ngaa yëg li association am taxawu ñu wér di yëg war ngaa yëg ñi nga xamante ni ñoom ñoom am feebaru xel li ñuy yëg ñu bàyyi leen xel te yàlla rek tax te bàyyi di leen politiser bàyyi di leen mbubboo bàyyi di leen uti alal bàyyi di leen toroxal ak a jànni te ñu jóg dimbali leen nañu génne malade mental yi ci mbedd mi état war naa def effort ñun dey li ñu mën suñu mënoon effort am centre wallaay duñ ci xaar kenn parce que ay jeunes yu engagé wu lañ ñu bëgg li ñuy def lañ te ñu ko gëm lañ di ci dox guddeeg bëccëg suba ak ngoon kon nag état ñu ngi koy woo di woo képp kuy doomu aadama di woo presse bi waa info réew mi waa dakaar net wax dëgg yàlla di leen woo yéen tamit ay nit ngeen yoo xamante ni yéen a ngi yaatal li nga xamante ni moom moo di métier journaliste te wax dëgg yàlla message bi ñu bëgg mu jàll daal ñu ngi sàkku ci yéen ngeen jàllale ko ñu bàyyi xel malade mental yu jigéen ñi xam ne ci journée bii ci lañ bokk te kenn féetalu leen kenn dimbaliwu leen ñun nag depuis démb lañ dem wëri leen ci terrain bi indi leen am na ci koo xamante ni xujja maane ci mbedd mi lañ ko ëmbal maa ko jël yóbbu ko sama kër sama njaboot toppatoo ko ba mu am doom man mii di wax ak yow sama ñetteel Fatignan ci mbedd mi la la nekkoon nekk malaat mental maa ko jël indi ko ci kër gi ñu accompagner ko ba mu wér mu am doom tuddee ma ko ma takk ko mu doon sama soxna ma takk ko mu doon sama soxna Fatignan Balde tey Sénégal ñëpp a xam bu ñëpp defoon noonu kon malade yi léegi ñu jeex mais wax ji nañ ko wàññi te yaatal jëf ji te dimbali leen te xam ne ñii lu waay def ci ñoom rek sa bopp nga ko defal te yombal xiyaam yi ngi ñëw te wax dëgg yàlla lu jar bàyyi xel la. ban difficulté ngeen am fekk ki nga xamante ne dafa am euh, feebaru xel ngeen fexe ba récupérer ko andi ko sang ko jox mu lekk ba ba defal ko lépp li nga xamante ni jigéen war na ko mun a am. non duñ am benn difficulté parce que dañ leen di comprendre dañoo jiital yërmande ci ñoom. buñ ñëwee ak melokaan bu buñ mënti am ñun dinañ mën a communiquer ak ñoom ba woo leen ci li ñu bëgg ba ñu indil leen gis nga ñoom ñëpp ñu ngi toog jàpp seen ñàmbur ñu solal leen ba ñu rafet di leen jox ñu lekk di leen jox ñu naan di jàngal nit ñi amuñu ci benn difficulté yërmande ji kay xanaa moo ëpp ci ñun que ñu bàyyiwaat malade mental ci mbedd mi dinañu metti lool dinañu diis lool parce que ñoom tàmm nañ ñu fi mu toll nii tàmm nañ soxna yi jaxasoo biñ jaxasoo ak membre yi fi mu toll nii buñ sañoon journée bi du jeex alors aussi euh, ban message ngay lancé euh, euh, état bi ak tamit bonne volonté yi nga xamante ni comme yéen wax ngeen ko que ni da ngeen bëgg benn centre ban message ngay jàllale. message bi may jàllale mooy bi ma yàgg a jàllale nañ ut centre tabax nañ benn centre bu mag fële ca diwaanu Kaolack centre boobu daanaka xar yéeg ba yéeg ñoo ciy nekk di foo ak te malade mental yi nekk ci mbedd mi am na état am na ay jeunes yoo xamante ni dañoo engagé wu volontaire wu liggéey boo xamante ne ñeenti at ñu ngi koy def amuñu salaire. kenn fayuñu kenn gërëmuñu kenn neexaluñu te ba léegi découragé wuñ bàyyi wuñ tàyyi wuñ chaque jour ñu ngi ci terrain bi amatuñ benn jubluwaay lu dul malaat mental yi kon état nag war naa gëstu xam ne ndaw ñi ay ndaw ñu engagé lañ mu jóg jàppale leen ngir ñu mën a atteindre but bi nga xamante ni moom la ñu moo ñu tax a jóg. alors ñu lay jaajëfal kàddu rafet na macha allah message bi jàll. merci beaucoup kontaan nañ ci yéen jërëjëf. Euh, geste bi li ko waral du dara tout d'abord maa ngi nuyu ami internaute euh, yi nga xam ne ñoo ñi seetaan di ñu déglu yëpp euh, di leen euh, jaajëfal euh, di beral nuyoo tey ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi mooy jigéen ñi nekk ci monde bi yëpp ñu leen di beral nuyoo di leen jox ñaari loxo man nag tur bi maam Ngoné Gueye la membre association Ànd Taxawu ñu wére di te yàlla rek tax di sawar ci tontu ci li nga xam ne moom nga ñu posé ndax lu tax sawar di ci tontu bi mooy depuis démb ci guddi ba léegi ñu ngi ci terrain bi nekk ci mbedd bi di wër malade mental yu jigéen ñi bëgg leen a rassembler pour euh, feetandoog ñoom li nga xam ne mooy 8 mars bi wane na ñoom ci fête bi lañ bokk comme ni nga ko waxee léegi dañuy faral di dégg di gis ne jigéen ñi bu at bi jotee weer bi ñëw ba bis bi yegg si dañuy wër di wax di def ay sortie di def ay euh, di médiatiser seen naqar di wax li nga xam ne loolu lañ bëgg mais chaque jour dañuy gis ne ñi nga xam ne dañoo am feebaru xel dañ leen cee génne moo tax association ànd taxawu ñu wére di plus précisément ay jigéenu association ànd taxawu ñu wére di jug taxaw ñu ne ñun suñu nawle yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd bi te am feebaru xel ci journée bi lañ bokk ñu dem jëli leen ñëw tey feetondoog ak ñoom noosondoo ak ñoom war leen ne bien vrai que yàlla wàcce na ci ñoom tawatu wére di xel mais ñoom ay jigéen lañ comme ñun nu ñu nekkee ay jigéen ñu dundandoo ñoom feet bi tey nag macha allah après li ci des xam naa ni yéen a koy waneel seen bopp image yi dina wax par nu mêmes ñu jëli leen indi leen di wax rek ci àq ak yelleef yi nga xam ne moom la. jigéen yeneen yi di laajte ñoom it ci la ñu bokk boo gisee mooy slogan bi nekk suñu ginnaaw. alors aussi comme ni nga ko déggee ah, macha allah aussi est mun na ñoo xam ah, lii ban at ngeen ko commencé créer. lii ñu ngi ko commencé depuis 2018. ñu ngi ko commencé depuis 2018 mu nekk initiative boo xam ne yàlla wàcce na xel mi ci suñu président muy Pape ñaa Cheikh ñaa ñeneen ñi gën ko ci xamee yàlla wàccee xel bi ak xalaat bi ci moom mu yaatal ko mu laal ñu ñun ñëpp ba ku ci nekk ñëw tàbbe si ci liggéeyu yàlla bi ñun nag ci sunu biir ñu tuddee ko jixaatal borom bi ndax euh, sunu borom moo ne nañ koy jaamu ci jaamam yi ñu jaarale foofu rek sunu jaamu yàlla même si am nañ ci yeneen mais bii bokk na ci li gën a fés jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi koy def mu jëm ci jaamam yi alors aussi ñu gis que ni comme ni nga ko waxee euh, jigéen bi nga xam ne dafa am feebaru xel mu mu mu soxla lu bari li nga xam ne ci wàll adunaam yéen euh, ban difficulté ngeen am tey bu ngeen jigéen bi ngeen xamante ni dafa am feebaru xel ngeen dem waxtaan ak moom fexe ba ànd ko fexe ba sang ko fexe ko ba dafa ko lépp li nga xamante ni moom la jigéen di war a am ban difficulté ngeen am à moment ci terrain bi. Euh, difficulté yi baaxi na mais bi ci gën a frappant mooy li ñuy wax chaque jour. ou du moins li may wax chaque jour damay bëgg ñu koy dénoncer constamment jigéen yi ñu gisee ñun sax seeni nawle jigéen ñu ñëw jubal ci ci ñoom pour dimbali leen jële leen ci mbedd bi dañuy tiit dañuy effrayé wu parce que ci mbedd bi dañ ciy dund ay tar-tar ci mbedd bi dañ ciy subir ay cas de viol ci mbedd bi dañ ciy subir ay abus sexuels te kenn waxalu leen amuñu kenn ku leen waxal parce que malade mental bu jigéen bi nga violé mënul xëy dem euh, gendarmerie wala police pour porter plainte parce que dafay toog di di ko ak li nga xam ne moom moo ko dal boole ci ak jàngoro bi nga xam ne borom bi teg na ko mu nekk leneen lu diisaat ci kawam moo tax ñun ñu jug pour di leen xeexal lool moo tax saa ñu wàccee sur le terrain dañuy naxtaan ak ñoom fexe ba ñu am confiance ci ñun et alhamdulilah euh, nekkul pour se vanter mais yàlla dogal na ni amaguñu centre mais malade mental bu nekk euh, dakaar plus précisément parce que région yi ñu ngi ciy dem un peu partout mais mën naa wax ne Dakar plus précisément majeure partie yi xàmmee nañ su suñu ñëwee duñu jar sax ñuy nekk di wax nii nii ñun tamit xam nañ seeni tur dañuy ñëw rek wax diw affaire yooyu waxtaan ak ñoom ñu malagante ñu ne ko ñëwal ñu dem xam na liñ koy doyee day ñëw ñu dem ñu yeesal ko jox ko mu lekk mu naan ñu àndaat ak moom indi ko. mais affaire bi ci Dakar la wala da ngeen génn partout euh, ci région yi xool ñi nga xamante ni wéeruñu ngeen non association bi c'est international parce que am nañ ay membres yu nekk un peu partout dans le monde mais Sénégal la ñuy exercer Sénégal la ñuy exercer mooy membre yu nekk Dakar mooy siège bi nga xam ne mooy siège bu mag bi Dakar la nekk mais am nañ un peu partout dans le pays ay sièges comme lu ci mel ne Casamance comme lu ci mel ne Kaolack comme lu ci mel ne Mbour comme lu ci mel ne Louga. un peu partout dans le pays am nañ fa ay sièges yoo xam ne ay ndaw yu bokk ci association And Taxawu Ñu di ñu fay defal ay liggéey bu ama am solo yàggul dara dara dara dem nañ Tambacounda fi nga xam ne moom la ñuy woowee la région des malades mentaux des malades mentales du moins def nañ fa une semaine dem nañ Tambacounda yàggul dara bi ñu ñibbi ñibbisiwee ak léegi matu sax une semaine def nañ fa une semaine pour taxawu leen aussi dégg naa sànq ci seen kàddu ngeen ni ah, yéen da ngeen ak ñoom eh, eh, ngeen fanaan ak ñoom mu nekk li nga xamante ni menace ci nga xam ni dégg nañ ko parce que sànq ñi dégg ne des fois dañuy faa mu jug ne dama lay rey loolu nag ndax ngeen koy dundee est-ce que nekkul benn risque ah, ah, autant que da ngeen ciy jaamu yàlla. Euh, sànq ci sama njëlbeenu waa dama la wax loo xam ne dafa mel ne déggoo ko dama ne la ñun ñi bokk ci asos bi lii ñuy defal yàlla jihaad lañ ko def te kuy jihaati xalaat nga fa dee waaw. mais ci kaw jihaad bi xam nañ ne ay doomu aadama ci lañ jëm ay doomi aadama comme ñun mu nekk jigéen comme mu nekk góor ay doomu aadama lañ comme ñun donc ñoom amuñu benn marge boo xam ne war nañu ko ëppalee ou pas loolu soo bëggee mën nañ la wan ay preuve à l'appui démb bi ñu demee sur le terrain ba deux heures du matin trois heures du matin jëli leen dañoo ñëw sang leen bokkandoog ñoom tëdd vidéo yi mu ngi ak ñun te bu ñu bokkandoowee ak ñoom tëdd dañoo tëdd ci jàmm yeewu ci jàmm amuñu benn difficulté. amuñu benn difficulté parce que malade mental bi commencement bi mooy xamul du xam ku koy jël si kan la wala affaire yooyu mais bu yeggee ba yegg si ba nga sangu ko ba pare chaque jour damay wax sama naataangooy thérapie bi gën a baax nakate ci malade mental yi mooy sang leen parce que malade lu mu agité bu buñ ko dugalee ci toilette bi ba génne ko rek da gis ne day dal buñ leen sangee ba pare dañoo tëdd nelaw ñun ñu toog di leen surveiller bi suba si jotee ñu indi leen. gis tamit fi ah, seen ay parent yu ñëw assisté yen yéen leen di woo wala ñoom dañuy dañ leen di topp ba xam ah, fan la ñoom la seen doom nekk ba yoon tey nga mu leen récupéré ñëw andi leen. parents yooyu assisté dafa bokk ci parents ay malade mental yoo xam ne ñun ñoo leen jël en charge. waaw soo leen suñu delluwaatee ci bâche bi dinañ leen wan ay malade mental yoo xam ne ñun ñoo leen jël en lan moo tax nag ñu am si ay yu néew yu ñu jël en charge am na ay malade mental yoo xam ne faj nañ leen ba ñu tane jël leen en charge delloowaat leen ci seen i mbokk am na ñoo xam ne dañ leen bàyyi ci seen i mbokk jël leen en charge mais dañoo nekk ci seen i mbokk seen heure rendez bu jotee ñun ñoo def démarche bi à que ñoom ñu dem ci seen rendez-vous euh, déggante ak seen i wala seen i mbokk lu tax nag mënuñu élargir affaire bi ndax bu ñu sañoon malade mental bu ñu yeesal duñ la delloo ci mbedd bi mais amuñu fu ñu leen dugal pour l'instant. comme ni nga ko waxee amoon ah, fu nga leen dugal ban message ngay lancé état bi parce que yéen ñi ñu ah, maam ñi ñu war a jàppale lañ parce que lii yombul fekk nit ko ki nga xamante ne dafa am feebaru xel nga jël ko def def mooy yëpp yoo xamante ne ci moom ban message ngay lancé ah, kii. Euh, message bu ñuy lancé surtout ñu koy lancé si journée bi ñuy am xel bu rafet ak njort bu rafet ne message bi dina egg mooy soo gisee ci bâche bi ay jigéen lañ indi xam nga ni kon jigéen këram du ci mbedd bi te ñun jigéen yooyu yi ñu ciy wër seeni mbokk dañ leen ciy wër pour yóbbu leen actuellement centre la association ànd taxawu ñu wéré di jooy ndax ki nga xam ne joxoo ko centre joxoo ko lu muy defee ay activité am te mu koy def di dimbale ay malade mental suñ la wanee suñu registre malade mental yi nga xam ne jël nañ leen registre ñi nga xam ne toppatoo nañ leen registre malade mental yi nga xam ne ñun ñoo leen di yóbbu hôpital di leen faj et tout danga naan déedéet association bi deful lii ku def loolu fekk ne fekk ci ndimbalu kenn war a xaaru ci benn affaire bu extra lu dul yow nga gis vidéo bi sa xol tooy sa morom gis vidéo bi xolam tooy ñu nekk ay jaamu yàlla xam ne lii jaamu yàlla la nga yónnee si sa ñaq ñun ñi ci nekk ñu ci def suñu ñaq kon am li nga xam ne mooy centre lu normal la ci association ànd taxawuñu wérén te ñun paxe nañ mooy li ñu koy waxee chaque jour pare nañ suñu amee centre bu ñu dugal malade mental yi rek pare nañ di fa xëyal suñu bopp chaque jour di topp malade yi chaque jour lu ñu leen war fajee suñ ko amul sax ñu lijjanti ko suñu bopp dem yóbbu leen faj leen rek comme dap rek niñ ko daan defee parce que ñoom ci ñun la ñu bokk looloo tax nag journée bi tamit ñu ne pourquoi pas les femmes parce que journée mondiale de la femme la te ñoom tamit ay jigéen lañ moo tax ñu daal di leen ci boole yàq suñu nelaw yàq suñu lépp def ko ndax ñoom def ko tamit a yàlla rek a tax xam ne tamit ay jigéen lañ waaw ci la ñu bokk looloo tax ñun tamit ñu intégré ñëw ànd ak ñoom. mais dem fekk ki nga xamante ne wérul nga bëgg a jàpp andi ko sang ko mais loolu nekkul benn coono bi bi nga xamante ni yéen ñeneen koy daj quoi la ngeen daj ci ñi nga xamante ni wéruñu ngeen bëgg leen a jël andi leen defar leen. waa loolu moom coono bu rëy la waaye mbégte lañ ciy àndal ndaxte ñun ñoo opté liggéey bi ñoo opté def te yàlla rek a tax ndax dañoo gis ni ñu tumurankee ci mbedd mi. ñu gis ni ñiy laaj nañ dimbal ndax bu doon ñun ñoom mën nañ ñu dimbali looloo tax ñun tamit ñu mettre à leur place moo tax ñun ñu daal di ñëw jàppale leen te yàlla rek a tax mi ngi noonu di def te yàlla rek a tax metti na torom nag parce que nga gis nit xamoo ko xamu la nga ñëw mos wax ak moom pour bëgg ko sang bëgg ko defar lu ne par yenn saay lu ne di ko ci dégg ci ñoom balaa ñuy comprendre nga dugg ak ñoom ci toilette bi sang leen ba pare ñuy doon di comprendre bu ñu génnee ñu nekk yow nekkin bu rafet mi ngi noonu te tamit ñun tamit xam nañ ne risque ngi ci te risque bu ci am rek ñun engagé wu nañ te yàlla rek a tax. nga xamante ni yéen mosoo leen gis ngeen jàpp ko ñëw ah, war a fanaan ak moom ci benn néeg ah, ak yeneen menaces siini ni nag ngeen koy dundee. waaw xanaa teg lépp ci loxo yàlla rek parce que moom dañoo dem jël suñu intention jël suñu bëgg-bëgg dem ba ci ñoom ne dañ leen di defar te yàlla rek a tax. te bañ leen di andi xam nañ ni ñii danger ngi ci xamuñu leen xamaanuñu leen defuñu formation defuñu dara mais dañoo def te yàlla rek a tax ñëw ànd ak yàlla rek teg lépp ci loxoom di gérer mi ngi noonu nekk ci yàlla di ñu ci suturaal nag lu baree bare ba tey ji aussi nan ngay euh, nemmeeku ko euh, maanaam viol bi nga xamante ne des fois dañ leen ciy dal bi ñu ñëwee sax nit ñi xamal que ni am na ci nga xamante nga xam ne dañ koo violé euh, ba mu nekk en état yow nga géré ko yor ko ba mu am doom léegi loolu nag ngeen koy dundee en tant que jigéen. waaw metti torop metti ñuy ñaan yàlla loolu deñ ak jàmm parce que viol viol bi metti na torop torop torop te ñu ngi ñaan yàlla daal billaahi ñu arrêté ko daal que ça sèche quoi parce que naqari nañu torop nag. pape boobu yaa ko yor kër. waaw man maa ko yor sama kër muy xujamaane maa ko yor sama kër ba mu ñëwee mos boo gisee yaram bi kenn xamul lañ leen nduróol dañ ko yàq jaax jaxase yaram bi yëpp fépp foo laal mi ngi yuuxu comprendre nga ñu dugal ko ci douche sanga ba mu set dégg nga nekk ak moom mu amoon 6 mois de grossesse ñu koy accompagner dans les hôpitaux di dem ak moom di ñëw ak moom ba yàlla def ci sutura metti woon na torop nag mais sant yàlla rek. lay jëfal avant ñu lay jaajëfal dañ lay laaj euh, ban message ngay lancé état bi parce que da war a jàpp. di ñaan yàlla rek état bi moom dañoo bëgg ñu lu ñu jàppoon rek ñoom ñu ngi leen di ñaan yàlla rek a tax nañu ñëw jàppale ñu parce que ñun ay jeunes lañ yu engagé wu pour soutenir suñu ay moroomu jeune suñu ay moroomu jigéen surtout sonn nañ torop ci mbedd mi. billaahi sonn nañ torop ma leen di ñaan di leen di di leen sàkku ci nii ñu dimbali ñu te yàlla rek a tax ñu ñëw rek jàpp ci bu ñu yéemuñu état bi bon volonté yi tout le monde ñu ngi gis nag benn benn benn ñaar ñaar yi ñu ngi leen di gis mais état bi bu gënoon ñëw ba ñu am centre moo ñuy gën a neex ndax ñu ngi ci mbedd mi abandonné dégg nga ñu sonn lool tamit. 2018 aussi tamit yàgg. waaye depuis 2018 yàgg na torop waaye gisaguñu état nañu yàlla dimbali état ñëw ñu am centre bu baax buñ leen mën a accueillir. teg leen fa ñu recevoir leen ñun nañ ñu jox centre rek bu ñu joxee sant li ci des lépp dinañ ko def. waaw contentement bu baax a baax yëgee bu ma ci am munuma ko mënuma ko eh, eh, wax parce que dafa fort euh, étant donné que ñun ñi nga xamante ne ñooy waa ànd taxaw ñi wérat ji suñu xel dem na si sunu ay moroomu jigéen et man de ma vie musuma gis ñuy fêter journée mondiale de la femme boolewaale si malat mental yu jigéen yi nekk ci mbedd bi je l'ai jamais vu donc su tey jii su yàlla dogalee ñu am initiative boobu noonu euh, du ma def lu dul xam naa ne saluer que comme comme ñi nga xamante ne tey jii bu ñu xamee lan mooy suñu teewaay fii nii ginañ euh, ci am contentement bu weex ban difficulté ngeen la am booyoon dem di leen jëli ak nekk bi ngeen nekk ak ñoom ban difficulté ngeen ci am parce que loolu yaakaar naa ni risque la. waaw comme euh, comme difficulté boo xamante ne mën nga ko jànkonteel ak ki nga xamante ne xamuloo ko parce que malade bi comme ñun ñii la yow ak sa tempérament man ak sama tempérament du yomb moom am na si ñoo xamante ne dañoo métti carrément waaye nag ndem ñun ñoo opté pour ñëw dimbali leen euh, de dans un premier temps ñoom duñu xam lan moo ñu tax a jug ñëw di nga gis ñoo xamante ne dañuy déconné quitte à ce que dañ lay doox dañ lay saaga mais après yow yaay nangu rek parce que boo noppee ci moom dina xam yow lan nga bëggoon mais comme que nit ñi dañ leen doon romb ci mbedd mi duñ leen faale di leen romb duñu lu ñu yëg sax ba xam ne nit romb na yow nga approché leen sàng leen ak euh, ñi nga xamante ne dañuy nekk ci mbedd euh, bul xam kañ nañu gëj a sangu yow nga jël sang leen déjà rek won nga leen ne yow considéré nga leen donc euh, suñu lu ñu tàngal tàngal boo leen sangee ba pare dañuy dal bañ ginnaaw bi ñu dalee ba pare nag ci ngay mën na leen jox leen ñu lekk changer leen toog waxtaan ak ñoom lan moo siy gën a métti nag mooy tàggatoo bi parce que am na si ñoo xamante ne tey jii si tey ah, ñun amaguñu centre donc euh, mënuñu lu dul delloowaat leen fi ñu leen jëlee woon neexuñu te ñoom tamit des fois ni nga yëg-yëg bi nga leen won euh, considération bi nga am ci seen ci ci ñoom tax na booy dem ñoom dañ lay bëgg a topp te amuloo foo leen dugal euh, ñuy woo nag ñëpp bonne volonté yi parce que ñu dimbali ñu ñu am centre ñun pare nañu ñun pour dëkk ak ñoom. parce que tabaski korité 31 décembre noël lépp dañ koy fete ak ñoom kon ñun pare nañu pour dëkk ak ñoom juste nag amuñu fu ñu leen dugal lieu bi moom mooy li nga xamante ne moo moo ñu manqué suñu ko amoon tey jii wax dëgg yàlla am boo doxatee si mbedd Ndakaar yi doo fi gis malade mental muy bu góor muy bu jigéen parce que ñun tey ji noo ñu gisee ñu taxawoo ko nii si journée mondiale de la femme euh, mooy suñu góor yi loolu la ñuy def tout le temps tout le temps ñu ngi ci mbedd bi euh, chaque quinze jours ñu wàcc benn euh, bërëb ci ci Ndakaaru wala euh, récemment rek lañ jógee Tamba def presque une semaine donc fas yéene nañu fépp foo xamante ne malade mental nekk na ko fii ci biir Sénégal ñu ñu teg fa suñu tànk pour wan leen si ñun lañ bokk. alors aussi naka nga gisee viol bi nga xamante ni da leen dal souvent ñi nga xamante ni dañuy ñëw di leen sàkku ba am ak ñoom ay doom loolool loolu naka nga xëy dundee. moo ci gën a métti. mu si gën a métti ndax dèjà viol yow mii nga xamante ne nee nga ànd nga ak sa xel sax buñ la violé dafa am lu mu lay def surtout ko ki nga xamante ne amul xamul amul kenn ko ko dimbali amul kenn koo xamante ne mën na jooy jooytu jëmee ci moom. ba nag li si gën a garaaw mooy ci viol boobu noonu nit ki dafay mun na see jëlee ëmb te ki nga xamante ne ànd la xelam naka lay mën a toppatoowee doomam. ki nga xamante ne am ànd la xelam naka lay mën a demee di suivre ay visitam à la maternité. dégg naa sax am ngeen ci benn cas ki nga xamante ne nga fekk mu am 6 mois yéen a ko toppatoo ba nu mu amee doom ak ni ngeen ko. waaw euh, kooku ko jëlee woon ba fële Nioro di indi ko euh, président Pape Niang mooy ki nga xamante ne mooy président an taxaw ñu wéré di fat fat ko ci biir këram. mu nekk ak soxnaam ci biir néegam et c'est pas la première fois c'est la deuxième fois mu def ko parce que njëkkoon nañu am beneen malade boo xamante ne noonu la woon noonu lañ ko def ba mu accouché ñu defal ko ngénte et tout tamit c'est la deuxième personne bi nga xamante ne fekkoon nañ ko ci mbedd bi mu mu ëmb te xamuñu ku ko ëmbal ñu jël ko parce que mënuñu koo sànni mënuñu koo boddi ñu jël ko ba suñu borom dogal mu mucc ak jàmm ba d'ailleurs mi ngi nii ci biir bâche bi. alors ñu ngi lay jaajëfal kàddu rafet na ma. waaw c'est